Macky Sall waaw Umar ma la doon bëgg a laaj Umar Macky Sall lan la la defal en même temps aussi si liggéey yi nga xamante ni gars yi ñoo ngi koy liggéey di ko liggéey ak banques yi surtout ñi nga xamante ni ñoom ñooy wut ay fonds de roulement nan la la lan la banques yi amal njëriñ askan gi. ok asalaamaaleykum tey laaj nga ma question bu ma Macky Sall man maa ko bëggal sam bopp Macky Sall maa ko bëggal sam bopp maa ko bëggal sam bopp. sénégalais nag te Macky Sall dafa wone ay preuve yu leer depuis 2012 képp ku wax Macky deful dara mooy da nga soxor da ngay iñaan man noonu laa ko gisee lu mu munti doon am na lu mu def waaw lu mu doon am am na lu mu def léegi man euh, Sénégal banque yi lay wax pour président Macky Sall mu bàyyi si xelam ak ministre de la justice parce que justice bi. procureur yi président tribunal yi tribunal yi nekk Sénégal yi dañu war a bàyyi xel askan bi sonn nañu si banques yi banques yi moom la nit ñi di liggéey surtout microfinance yi microfinance yëpp laa wax nag dañuy def lu leen neex ay vingt cinq pour cent amul fenn te suñ sooy dugg ay dix pour cent la ñu lay wax wala quinze pour cent mais suñ demee ay frais de dossier ñu lay dugalal ay lépp day dem ba vingt cinq pour cent la ñuy jël mun naa la citer ay banques mun naa tudd tur mais microfinance laa wax ñoom ñoo bokk nañ si ñu rey askan bi Sénégal kenn mënu fi am ay fonds de roulement te duñu la may jàmm ay huissier lañ lay indi benn benn mois soo leen fayul ñu kar karee la wala deux jours lay am duñu la may jàmm dañu lay fitnaal président Macky Sall te loolu laay ay vingt cinq pour cent banques yi muy jël xaalisam di ko jarale si banques yi pour dimbale nit ñi banques yi seen bopp lañu fi nekkal ñu ngi lor askan bi di xaawi sutura nit ñi banques yi daal su ma sañoon microfinance képp kuy liggéey na ko bàyyi tout tranquille parce que dañ lay loraange la duñ la may jàmm lu leen neex la ñuy def ci banque yi Macky Sall man loolu laa la wax sénégalais yi bàyyi leen banque yi dañuy nangu sa kër di di def lu leen neex ci dëkk bi vingt cinq pour cent amul benn microfinance vingt cinq pour cent loolu soo ko tegalee ci nit loolu ban ban ban non makisal Sall vraiment xoolal askan bi te doo am foo koy jooy justice dama bëgg képp ku ñëw foofu problème banque jàppale leen ngeen teg leen tànk parce que banque yi dañuy def lu leen neex soo waxee ñu ne la dama justice ak seen avocat yi justice dimbale leen askan bi nit ñi sonn nañu banques yi dañ fay leb duñ vingt cinq pour cent la ñuy teg ba pare temps yi corona bi lan lañ waxoon waaw kii dañ koy pousse à cause de corona léegi ñu ngi topp nit ñi di leen sonal di wax ay ay ay da am tardement da am lii ñuy sonal nit yi man nii si laa bokk ak ñeneen ak ñeneen ñëpp ñu ngi koy joytu corona ba mu ñëwee ñu ne noonu dañuy pousse frais yi léegi ñu ngi ëlbide di sonal nit ñi yëpp di teg pression nit ñi yéen da ngeen may nit ñi trois mois léegi ngeen ne noonu ay retard la fu ñu ko teg no banque Macky Sall justice dimbali leen askan bi nit ñi sonal te te damay wax sénégalais yi képp ku fi ut fonds de na bàyyi banques yi fonds de du tax nga am banque nga am xaalis bàyyi leen banques yi amuñu fi benn njëriñ microfinance yi amuñu njëriñ askan bi président de la république loolu laa bëgg ñu yëg ko te nañuy fay fiscal nañu fay duñu fay di wax président ñoom dañ fi nekk di jàppale askan jàppale ñu askan bi ñu ngi lor askan bi loolu lañ fi nekkee banques yi microfinance yi ay vingt cinq pour cent la ñuy teg président xoolal loolu bu baax man maa la wax Macky ñu ngi lor sa askan lu leen neex la ñuy def banques yi di teg ay frais de dossier cent mille deux cent mille lu leen neex la ñuy def ak location yi président waxal si location yi te nga wax si salaire yi nga yokk salaire yi dund bi dafa gën a métti Sénégal salaire yi dafa baax salaire yi dafa tuuti président man fayow ma salaire mais gis naa ne nit ñi liggéey mënuñu am xaalis salaire yi nag si secteurs yi yëpp privé bi ak ak état bi salaire yi dafa ndaw président de la président Macky Sall lii laa la ñaan yokkal salaire yi wàññi transport yi wax naa la ko depuis 2012 ba léegi mag la topp ne président salaire yi dafa tuuti. liggéeykat yi mënuñu am xaalis sociétés di am ay milliards ñuy liggéey mënuñu am xaalis Macky Sall yokkal salaire yi dund bi dafa métti te nga xool mbënd mi yow sa solal sa dàll nga dugg caaro yi géejawaay Pikine banlieue bi Kër Massar président yow yaay sol sa dàll gis nga xaalis yi ngay génnee gars yi defuñu dara ñu ngi lay nax Macky Sall xaalis yi dañ koy jël di ko dugal si seen lu leen neex di ay loué ay moto pompe di la vidéo président jëlal sa billahi président Macky Sall soo solul sa dàll nga dugg si dëkk bi nga xam ne yow sa ministre liggéeyuñu kenn du si jël téléphone Macky Sall yow laay waxal sa ministre yi kenn du jël téléphone seen yoon nekkul si askan bi yow la ñuy nax di jël sa xaalis di signé ngay signé rek président defuñu dara Macky Sall yow laay waxal jógal nga jël sa oto nga dugg si dëkk bi ndox bi nit ñaa ngi sonn man billahi dëkkuma si ndox mais nit ñi gi semaine bi passé dama dugg si banlieue dama tiit président. dëgg yàlla billahi dañu sonn. Macky Sall yow soo moytu nit ñi dinañ la fekk si palais bi ñu ngi lay nax. wallaahi génneel nga sol sa dàll nga dugg yow nga xoolal sa bopp nga xam ne kon sa ministre yëpp da nga leen di tëj ci kaso bi ñëpp liggéeyuñu liggéeyuñu dara. seen yoon nekkul si askan bi. barke Mohamed Macky Sall man yow laa bëgg mais ñu ngi lay nax. Euh, Omar bu Macky Sall Omar euh, déglu la dégg nañ la bu baax. non ñu ngi koy nax Macky Sall ñëpp ko bëgg mais ñu ngi koy nax mu ngi signé rek ay don di génne ay milliards te gars yi defuñu ko si dëkk bi kenn xamul fu ñuy dugal xaalis bi man maa la wax li président solal sa dàll nga jël oto nga dugg si biir nit ñi soo ko defee dañ lay yàqal. ñu ngi lay yàqal sa ministre yi. Omar